Para la firma مثل فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون gannaaw sant yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ak julli ci yonentam bi mu tànn ci mbindeef yi alayhi afdalu salaatu wa xayru taslim bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu leen di nuyu lu bari di leen sant di dégg ci yéen di leen balu xaq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di leen ndokkeel ci bis bi daje bi nga xam ne dañ koo daje ci biir lislaam ngir di wut yiw boo xam ne dañ koo bëgg a dawal fa nga xam ne dara du fa doy ndax kër gi nu nekk dafa ñàkk solo ba suñ boroom bu ko feesee ci bëggam laafu yoo mooy gën a diis àdduna laafum yoo la suñ boroom gën a itteel ci àdduna ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe kon képp koo xam ne sa dund fam nga li ci ëpp jox ko àdduna ji nga xam ne laafu yoo ko gën a diis wacc fa nu jëm te muy lépp boo geesoo sa gannaaw da nga am kersa da nga ko am ci bu génn ci kër gi taxawee àdduna waxtu wi ci nit di génn àddunaa koy gën a soof ci àdduna àdduna balaa soof dëgg dëgg dëgg nit ki di taxaw ci tànk génn ci toll ci sukuraat boobaa lu mu gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a bañ loola lay gën a ragal loola lay gën a rus ba du bëgg mukk ñu ne ko sax sa jëfa wala yaa ko defoon waaw nit ki bu fi jógee pas-pasam lay njëkk a gis teg ci ay jëfam ñu faral nag kon xam ne war nañu ñuy faral a daje di waxtaane diine di fàttaliku di fàttalente di beesal suñuy xol di fàttaliku fa nu jëm di fàttaliku gàttuk àdduna ak woyefam ak ñàkk soloom ndax wor mooy jikkoom te du ci jóg mukk ku ko wor mu wor la ku ko warul it mu wor la di fi nit ñi gën a fonk dañ koy bàyyi te mujj lu ñaaw lay doon mu jug loola kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ne taxaw na ci tànki dem janloog li mu amoon ci àdduna lépp xam ne fi la koy bàyyi ñeneen a koy jëriñoo waaye dootu doon moom li mu gënoon a bëgg lépp mu xam ne génn na ca jeexal na ca diggante boobu mat nay seet xam ne kon bànneexi àdduna ak teraangay àdduna lépp bu sukkuraat tàmbalee mu jeex lépp jeex na wan gannaaw rek nit ki dootu ci jëriñoo dara léegi li na ci kanamam nag mu ngi aji ci ay jëfam ak yéeneem ay jëfam ak yéeneem rek a des yéeneeg jëf nag ngëm mooy balance bi koy peese innamal a'malu binniyaati innamal a'malu binniyaati jëf mu ngi màgge mu ngi baax mu ngi rée mu ngi amee toyaaba ca na yéene ji ko dicté rek na mu demee jëf ju àndul ak yéene jëmm ju àndul ak roo la du solo seen daje bi nag ngeen sàkku ci ñu waxtaane ci loo xam ne dafa mat a waxtaane loo am solo lool lool lool mu di xasaa yi nga xam ne moom la si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu bind mat a waxtaane la ndax kumbalu awliya yi kenn ku ci nekk da nga am wet goo xam ne moom nga jagoo sëñ Tuubaa nag am wet gum jagoo goo xam ne wet bu ñu ko ñeene la moo di suñu borom tànn ko mu nekk xaadimu rasul ndax mboolem martaba bu mu doon man nga ne fukk la la téeméer la wala junni la nangami nit jaar nañ ci jaar ci martaba boobu amee sañ-sañ ba amee man-man ba ak kàttan nga bëgg yàlla ba seen xol jeex yàlla bëgg leen bëgg gu toll ne martaba ba ñu taxawee nga xam ne ku ci nekk da nga taxaw taxawaayu suñu borom xalifatullahi fil ardi yaa ko taxawee boo ne suuf si tàkkal mu tàkk boo ne géej gi tàkkal mu tàkk suñ borom jox leen ko ñu boole kook yarute gu mat sëkk teggiinu ci kanamu yàlla ba nga xam ne du ñu ñaan dara lu jëm ci àdduna ñu dénk leen al ismul azimul azam muy tur bi gën a màgg ci tur yi tur yëpp a màgg waaye dafa am gu wet nga xam ne tur woowu boo ne woon jant bi bul fekk ndax du fenk nga am teggin ci kanamu yàlla ba doo ci ñaan dara lu jëm ci àdduna li nga ciy ñaan lépp lu jëm àllaaxira la ndax moom rek moo ko jar te duy teggin nga ñaan ci dara wala nga jëfandiku ci dara lu jëmul àllaaxira suñ tubaab dafa wax ne tariq tawaytu tariq al qawmi waqta imtidaaxihi wa li qad qada al xaajaati bi rawdi wal basti tawaytu tariq al qawmi waqta imtidaaxihi wa li qad qada al xaajaati bi rawdi wal basti buñ ku ñu defal xaas nga xaas mooy lu kenn nit jagoo te kenn fekk ko ca liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fànn yu bari dafa am solo jullit ñëpp def ko saxaaba yëpp def ko mu am ca wet boo xam ne ña ko jagoo la ñu tudde ñii liggéeyal yonent bi moom nag mu dikk ne mulkul aali al baaqi al qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yi donc sànni fit xidmi nguuru aji kawe ji ki fi dul jóg mukk te tàmbaliwul fenn def na ma féete kaw képp ku liggéeyal yonante bi moo ko wax de jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum jagle googu mu am nag ci xasida yi xam ngeen ne xutbul xaw si yu ber seenu yoon di woo bindee fii di leen jaarale ci yoonu jëpp yi siiw ñëpp dañoo nekk wàlliyu nekk aalim nekk abid ba noppi di shérif deret yi benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir deretam di daw ci ñoom ñuy sëtam doom nag ñaar la doomi ruux ak doomi yaram doomu yaram doomu ruux a ko gën a dëgër ci taxoon Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ne ku judduwaatul doo ànd ak nun ku judduwaatul duñ la ubbil malakutu samawaati wal ard judduwaat mooy lan mooy jébbalu wacc adduna ca gannaaw jox yàlla sa lépp jublu yàlla akub yonentam ak diine ji akub xaritam loolu mooy judduwaat ku judduwaat shahid nga shahid mooy lan boo gisee alquran ne wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatun bal axyaaun inda rabbihim yurzaquna farixina bima ataahum la min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalxaqu bihim min xalfihim ala xafun alayhim wala hum yaxzanuna shahid mooy nit koo xam ne bu génnee adduna soxlawul sang ndax adduna medd la moo xam ne ku ci sa loxo laal da nga raxasu ci zahir raxasu ñu raxas la ci baatin raxasu bi ci zahir mooy boo fi jógee daañu la sang daañu raxas ci baatin moo di bu fekkee ne bàkkaar topp na la boo naree texe suñ borom benn mu teg la ay tiis ci àdduna ci sa dund mu di ñàkk wala mu di tawat wala mu di am lu la naqari benn li la naqari nga am ko ci sa jëmm wala ci sa alal wala ci sa njaboot wala ci sa doom yooyu yëpp di wàññi bàkkaar yi di am póot moo xam ne daf lay fóot boo demee ba dee jot te póot moomu setul ñu diisal sag dee mettil ko sa sukuraat metti mu set bàkkaar yëpp set nga bokk ci xarit suñu borom yi jëm àjjana naka noonu la safaan bi demee shahid bi nag mooy ki nga xam ne dara taxu ko ci àdduna ndax bu muy génn këram dafa fas yéenee dee ci yoonu yàlla mooy ki joxe boppam may boppam yàlla wala xaritu yàlla adduna xolam génn na ci ba set dara ajiwu ci kooku bu deewee càngaay yi ñu ko sàngee koy seede ëllëg ci kanamu yàlla bu dee ku doon jihaar deratam ji ko takkoon liñ ko reyee ak yërey xare yi ñoo koy seede yom yomal xiyaam ndax dañu ne yomal xiyaam yi ñuy ñett yi ñuy peese bu ci gën a foor deret yi ñoo ñu doon jihaar ci yoonu yàlla seen deret jaamu ko te yàlla yi ragal yàlla dëgg dëgg ragal su nit ñi nelawee te ñuy julli seen rangoñ yi di sotti ko rangoñ yooyu ak deret jooju dañ koy peeseet daa daa yi ulama yi nga xam ne ñooy bind ngir di jàngale lislaam di xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi li yàlla bëgg ak li mu tere daa jooju ak deret jooju ak rangoñ yooyu la ñuy peese yomal xiyaam boo gisee ñu ne ñi doon xare badar purit mi génn ci seen gémmiñu fas yi buñ ko peeseeg wàlliyu purit mi wat ko ba ñuy génn seen kër dañu dañoo mayoon si yàlla seen seen lépp seenu dund fasatuñu yónnee dellu si kenn ku ci nekk di ñaan yàlla dee ci xare bi ndax yomal xiyaam nga dekkaale daraja joojule moo tax sëñ Tuubaa ne waqaani al mawta wal amraad yarfauni bi ruuxi wal jismi lil jannaati war raaxi ñu ne nag gannaaw nit ki dafa war a judduwaat te judduwaat mooy am baay boo xam ne baayu ruux la ndax yow ma alastu la suñu borom boole woon ruux yi xeetoo yépp li nga xamee ne picc bu sabee picc rek a koy tontu nag bu xar bu meemee wala nag ku mbokkal waasu rek koy tontu roo yi nga xam ne ñoom la suñu borom dooleel woon ñu war a xett li ëllëg ba ñu wootee foofee la leen roo yi xeetoo ak ñoom wuyu kon taalibe yi ñooy xeetu sëriñ bi ñu war a xam ak dundam nam dundee woon nam doon def xam li ko yàlla jagleel xam li mu digle ak li mu tere roy ko ci biir ak ci biti ca kem na mu yàlle ci ñoom nañ ca lañ ca àttan mu bind xasaayid xasaayid yi di jagleem goo xam ne moom rek ko moom ñu defal ko ci bépp xeetu jaamu yàlla bu doomu aadama masa jaamu ba lislaam dikkee ci àdduna ba ba ñuy taxañ bufte bi xasida yi xasida gu ci nekk ak xusuusiya ba mu ca def ak bañ ko ca defal ak lañu ca may képp ku koy jàng te joxe sarti jàng ko loolu mooy lan xasida yi bu ñu jàppul gul benn par benn mboolem xasida yi sëñ bi sax xam ngeen ne teqantal na ko nee na ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy li mu bindoon bi mu daatan dem ci géej gi leela ne loola nee na suñu borom nanguwu ko suñu borom nanguwu ko mooy suñu borom daf ko nangu nangu waaju jàng ba am xam-xam xam yàlla bëgg yonent bi topp ak bëggam ak xërëm di wut tuyaaba di ko tagg nangu googu la ko tagg te loolu du dara fi moom moo tax mu ne lim bind bi mu demagul ci géej gi suñ boroom nanguwu ko lim bind ci géej gi ba bi mu delsee ba cee ba nga xamee ne ca déwén sa lay ñoom cee it jóge ci yéen mu di ama shahid naa bi karam suñ borom nangu na ko defal na ko ci lu kawe njort te xasida goo ci jàng tuyaabaam am na tuyaaba jiñ ko mën a niraleel di ko tàmbalee nag foofu ci ama shahid naa bi karam ba bi mu fi jógee suñ borom yëkkati ne ko ci daraja joo xam ne moom la suñ borom gën a sopp ci wépp bind wu nit bind bu alxuraan wéyeekoon ak xadis leneen lu keneen bind looloo ci gënal suñu borom suñu borom nag li mu gën a bëgg kon ku ko cay jaamu boo ko sellalee yaay ko ëpp tuyaaba ci jaamukat yi li ci nekk nag ci mboolem xasida gu mu ci doon moo di raxas nit ki dindi ci moom yépp jikko yu bon xam ngeen ne nit balay am fat siddiit yi nga xam ne ñetti téeméer rek fanweer ak ñett lañ ci doomu aadama nga xam ne dañoo wert ci bu leen borom basira di xool xam ne siddit gu ci nekk dafay xëcc jëme ci texee di ci xeetu texe yi li mu doon xasida yi day raxas nit ki soppi couleuru sidit yooyu la siditu kañaan siditu tayel siditu bëgg àdduna siditu bëgg daraja siditu fen siditu rambaaj siditu sopp lu lay lor siditu ñàkk a maandu siditu ñàkk a muñ ba sidit yooyu yépp jeex xam ngeen ne jaam bi suñu borom nar a yërëm day rocc ndànk ndànk ci moom sidit yooyu la ndax pays ba ku ànd ak salteeg sobe doo fa dugg te salteeg sobe ci baatin la ñuy wax waxuñu ci zahir salteeg sobe ci baatin mooy jikko ju sharia bañ nit koo xam ne dindi woon nañu sa jikko yu bon yëpp ba mu des añaan wala ba mu des bëgg adduna wala ba mu des bëgg daraja wala ba mu des mbañeel noone am sàkk benn jullit booy noonoo ngir lu xew sa digganteeg moom boo jubee pays ba ñu ba max la doo àgg mukk dañ lay dàkku di ko yooyu nag bu fekkee ne suñu borom nam mën a ci jaam bi xëcc ko ba mu àgg ca daraja yu kawe ya benn dafay sikkar tur yàlla wala muy jàng alquran wala muy jihaar wala mu dëkkee julli ak koor wala mu dëkkee zikr wala fikr suñu borom day rocc ndànk ndànk di ko yoolu si dit gu wertoon weex wala mu bëla wala mu jaune ba si du yooyu jeex mu soog a am fatx al fatx nag am na fat al fatxu lakbar ak al fatxu lasgar al fatxu lakbar boroom fi mu toog jën yooyu xeex ca géej ga day jàlloog ñoom mën leen a atte sànq leeñ way dox ca kaaba ga mu toog fi mu toog mën ko faxas mu deñ day jàlloog li nit ñi denc ci seen biir néeg ci seeni walis ci seeni armoire al fathul akbar boo ko amee da ngay dajeeg nit ki gis li ñu bind ci jéem texe la wala texe li wala nga xool la ko ma foos gis tur yi ci nekk nga jàng ña ca texe di ak ña ca texe yooyu yëpp ahlu tasawuf leeral nañ ko mu ne nag xasaayid yi day dindi jikko yooyu la ndax ni ma waxee ne taalibe bi xeetu sëriñ bële bu fekkee ne sellal na lii problème bi nag mooy ndax sëriñ bi nangu naa sag taalibe nan ngay defit bay am rafet njort ci ne nangu nañ sag taalibe loolu lu ñu war a waxtaane la waaye daañ njëkk a waxtaane xasaayid yi booy si jëmee te bëgg cee jëriñu nan nga war a def bi nga xam ne mooy li ngeen laaj nit ki fu mu ko mënee na ànd ak njàpp na ànd ak njàpp bu ko mënee jublu penku bu fekkee ne nekkul kuy jàng ñu di ko déglu lu dul dafay jàng ngir soxla wala ngir jege yàlla wala ngir am tuyaaba wala ngir far ay ñaawteefam bu jubloo penku delloo si jëmmi sëriñ bi ci ni mu ko ni mu ko imaginer ak ni nga gisee portale moom ni nga dégg ñu di ko wax nga teewal ko ci sa xol nga teewal ko ci sa xol jàng xasida gi ànd ak teewlu gu teeng goo xam ne dañ koy yëg ci sa xol yëg ko ci sa yaram yëg ko ci sa cër yëpp xasida yi turu yàlla la woo xam ne day raxas nit day àggale nit it ndax lim ne kitaabati tafuuqu cheiqu tarqiya kulli xayrin wa fiiqu tarbiya sama bind féete ne kaw sëriñi tarqiya yi ak sëriñi tarbiya yi kon xasida yi daf ko fee wacc ngir muy tarbiya ñennat di tarqiya ñennat tarbiya mooy li ma leen waxoon ci dindi jikko yu sew yooyu le ak yu ñaaw yooyu le tarqiya mooy yéege nit ki ci yàlla moom la ahlu tasawuf di wax taxliyatu wa taxliya ak taxliyatu mooy raxas ndam li ba mu set ba ñam woo ci def mën ko lekk taxliya mooy sotti ko ñam ba mu fees wala ndox ba mu fees ahlu tasawuf diggante taxliya ak taxliya dañu sàkk ay yoon yoo xam ne ci la nit ki jaar sàkk ay charte sàkk yi defin nit ki di xiifal boppam di maral boppam di wéet di tudd yàlla di jàng alquran di sikkar di xalaat ak mujjëm fu mu jëm di xalaat sukuraat di xalaat tiisu bàmmeel di xalaat laaj toobi munkar ak nakki di xalaat bisu dekk bekk taxawaay ba ak tiis wa di xalaat jéggi siraat di xalaat ajjana ak safara ba loolu sax ci xolam mu dëkke ko sopp nañu buy tudd yàlla muy yëkkati baatam ba cëram yi noppam di ko dégg cëram yëpp di ko yëg loolu la du dañ di ko raxas ba mu set duy ko ba mu fees taalibi bi nga xam ne day jëfandikoo xasaayid yi xam ngeen ne jàng alquran ak sikartu yàlla ak jàng xasida yi bu ci nekk am na loo xam ne lii nee na fii te newul fii ci xaqi ñennat xam ngeen ne alquran am na ñooñ dañ koy jàng aaya yi ak xaraf yi ak baat yi di leen rëbb xam ngeen ne kooku jàng alquranam musiba la bu fekkee ne loolu foog na ko ci boppam ba bàyyi jàng alquran nag musiba mu gën maa mag a ngoog loolu nag la iblis bëggoon alquran ki koy jàng mu di leen rëbb mooy kan mooy ki nga xam ne gëmul li alxuraan wax te li mu digle du ko def li mu tere du ko bàyyi kooku buy jàng alxuraan it du ko jëriñ dara dafa war a raxas xolam ba imaanam wér mu dellu si nag di jàng alxuraan ndax jàng alxuraan moom du wàcc kenn bi ñu laajee limaamul xasaali radiallahu taala anhu jàng alxuraan kan lay wàcc kañ lay wàcc nit dafa ne du wàcc kenn nit ki féeg àggul ci xar-xarle bu fekkee ne àggu ci nag waxtu wu nekkee ca xadratul quds ca pays suñu borom tabaraka wa taala ndax alxadratu xadratu bahtin ku fa nekk da ngay wedam doo xamante dara bu boobaa jàng alxuraan wàcc na la waaye waxtu way génne ca pays ba rek mu daal lay waraat ndax al ismul azimul azam bi nga xam ne moom laa doon waxtaane sànq ci ñi ko am ni ñu demee sax ku ko am boo bàyyee jàng alxuraan wala nga bàyyi salaatu ala nabi sag yàqule lu jege la mën na am mën na ñàkk waaye lu mën a nekk la ci yow ñu ne kon jàng alxuraan nag tuyaabaam xajul fenn ndax limaam ahmad ibnu hanbal bi mu génte gis suñu boroom azza wa jalla daf ko laaj ana lu la gënal ci loo xam ne lii lépp nit mën na la koo jaamoo ngir jege la mu ne ko jàng alxuraan mu ne ko jàng alxuraan xanaa te fekk nga dégg maanaa yi mu ne ko nga dégg ko nga ñàkk koo dégg yépp kon nag boo déggul alxuraan ji li muy waxit teggin yi ci war ci teggin yi zahir ak ci teggin yi baatin boo ko matalee kenn dootu la ëpp tuyaaba te am na nga xam ne day jàng alquran du ci xam dara waaye matal na sàmmante naag xaq yi ak charte yi muy jàng ba bu koy jàng day mel ne mi ngi koy dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di ko jàng lu wuy ci loolu ba buy jàng alquran day mel ne sidna jibril la jan lool muy jàng alquran bu bàyyiwul day wéy ba mel ne suy jàng alquran moom ci moom day mel ne suñu borom tabaraka wa taala mooy jàng alquran mu di ko dégg kon alxuraan dana yéege nit waaye am na xatar dafa bari yu ma laaj nit ki bu koy jàng teewlu gi dafa war a ànd ak am tiit ak yëpp màggaayu suñu borom gi jox ko teggin yi ca war xelam bañ a dem ci leneen mu ànd ak mu laab jublu penku di ko jàng charte yooyu ñu ci def fekkente ne nit ki nga xam ne mu ngi jàng xasaid yi itam wala muy jàng xadis yonante bi sallallahu taala wa sallam loolu yëpp a ngi ci ndax fóot moo waxoon ne moom la xasaid yi di fóot nit ki ndax tarbiya la ak tarqiya ni ko sëñ bi binde yooyu ci xasida yi la nekk boo ko saxoo jox ko noonu xàqam mu dindi si siddiiti texeet yi ci yow yëpp ba mu dañ ba set boo wéyee mu duy la ba nga fees gannaaw loolu it nag teewul xasida bu ci nekk am na jagleeg boppam xasida googu wax naa ko ba tey ci ay conférence saana ilaahi googu suñ bi wax na ne taxaw na taxawaayu bépp xare bu nit ñi ànd ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam di ko xare ngeen nekkoon xasida googu tuyaabaam kenn xamul lu mu toll waxoon naa leen sànq mag ñi doon xare badar seen daraja fa mu toll te xam ngeen ne saxaaba yi kat ñoom ñi tëral l'islam ci seen deret ak seen alal képp ku jaamu képp ku jaamu tuyaaba ja fekk leen fa nga xam ne loolu moo tax ñu ne saxaaba yi kenn mënu leen a jot nit mënu la baax ba jot leen ci jëf nit nag mën na leen a jot ci daraja ndax daraja moom mu ngi aji ci tabege yàlla rek moom yàlla lay neex rek mu jox ko nit waaye bi nga xamee ne sëñ bi neen dafa woor ba ngoon jant so mu ñaan suñu borom mu wan ko tuyaabay xeeti jaam yàlla yépp mu gis tuyaabay ahlu badrin gën cee mag moom laa misaal léegi ne booba ba léegi bañ fi jógee ba léegi jaamu gu nit jaamu tuyaaba ja fekk si leen ba ba addinay tukki ba ba lislaam di jóg ci kaw suuf si mu gën cee xima xemmem tuyaaba jooju mu fas ko yéene sàkku mboolem xutbul xaw si bu fi nekkoon jaar na ci yow kenn amul sañ-sañu joxe ko ndax kenn amawu ko ci bi mu laajee suñu borom wax nañ ko ay yooni yoon bi mu laajee suñu borom ba mu xamal ko ne daf koy jaay mu laaj ko ndax sañ naa xam njëg gi ba mu ko ko xamalee mu di nattu yoo xam ne nattu yonent ya nattu yonent ya jëkk ya la woon ku ko mas a laaj ci xej ji yàlla yi buñ la ko waxee nga won ko gannaaw moom mu ne téeñu na ko ñu def ko nag xaadimu rasul loolu moo tax mu wane ne xad sirtu bil muxtaari kal jaarey ni nee na mujj na mel ci yonant bi ni ñaar ña dëkk ak ñoom sidna abubakar ak sidna omar ñi nga xam ne ñoo gën a rëy mbir ci jullit ñi bu yonant bi sallallahu alayhi wasallam wéyee liñ ko defal lépp nag li ci gën a bari mi ngi ko def ci xasida yi xasida googu nga xam ne mooy saana ilaahi loolu ma ci wax naka noonu muwaahibu naafi waxtu waa xam ne bëgg nga may ay may mayi adduna ak mayi alaxira nga xam ne mayi zahir ak yu baatin dana ci ànd nga xam ne ñaan gu nangu dana ci ànd muwaahibu naafi moo ci gën a gaaw aku jànginam nga def teggin yi ca war ni ma ko waxe woon rek fekkee ne am nga aajo ju la jaaxal rabbi maa yashrahu ladaana qad fajaa fekkee ne bëgg ngaa mucc ci ay nit ak jinne wallahu yasimuka min annaasi jooju waqaani xafisun qaahirun jalla maaniu jëzbul qulub bu fekkee ne bëgg nga suñ boroom nocc ci yow jikko yu bon yooyu xëcc sa xol ba mu nekk ca xadra ba nga xam ne foo toll yàllaay nekk ci sa xol ak yonent bi ak lislaam ak sëriñ bi nga xam ne mooy sa wasila na nga faral di jàng jëzbul qulub an waxtu leen ngeen jéggal ma kat dama xaw a fanaan bi Touba ci waxtaan wu demee nii kon nelaw tuuti ngir ma récupérer waaye nag yàlla dugalul nelaw ma ba tey itam nag ma dellu si fi mu ne ma xaw a sonn xaw a gëmmentu waaw ma di leen ñaan ngeen jéggal ma bëggoon naa waxtaan wi yàgg lool xër naa ci lool it moom a tax a ñëwoon wax dëgg yàlla daanaka mënuma ko woon ah moom doo nga ma tax a jóge foofu it ba ñëw kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii moom lu baax la ndax jamono ji ngeen nekk ci la gën a amee njëriñ ndax jamono ji fëkk na nit ñi ndax fi mu nekk nit ñi tànk bu ñu séqi intérêt tax intérêt nag muy intérêt muy passion bu jëmul ëllëg te yàq nit ki yàq réew mi ndax réew bu fekkee ne kenn ku nekk sa intérêt bopp rek nga seet kenn seetatul lu baax ci jullit ñi wala lu baax ci réew mi wala lu baax ci nit ñi réew moomu ma ngay bërëngu jëm ca kan mu xóot ma ca kàmb ga lay daanu te nit ñi dong ñooy baaxal réew ñooy defar réew lislaam nag lu dëgër la réew moo xam ne am nañu lislaam dëgg bëggam seen baatin ak seen zahir day rafet bu fekkente ne xamal nañ leen lii lislaam te ñu xam ko te jëfe ko xaw ma nag buñ ko waccee fee fàtte ko topp seeni bakkan boo gisee réew yi wuute Sénégal yi wuute réew yu bari mooy ngëm gi dafa dëgër te sax li ko fi defit gannaaw yàlla mën nañ ne sëriñ su baax si fi nekkoon te farlu ndax te ñu gëm leen waaye bu fi sëriñ su baax si bu ñu fi nekkoon itam te farlu def lépp te nit ñi joxuñu leen seen bopp wala wóoluwuñu leen itam duñu nit ñi duñu ci jëriñu kon itam day mel ne yeneen réew yi rek boo giseen ku mel ne Montesquieu benn philosophe du dix-huitième siècle di wax naan pour légiférer dans un pays il faut tenir compte de la nature du sol, de la religion, du climat. moo di am nañu erreur yu ñuy def moo di dañuy roy réew moo xam ne mu développé la te nun dañoo sous-développé ñuy roy réew mënu bokkalul aada waruñoo niroog ñoom ay loi sax fu mel ne Amérique masalan nga xam ne da ngay gis waaju drogué ba xamatul fu mu nekk jàpp soxnaam di ko dóor di ko dóor ba bu ñu intervenirul daf koy rey te yoonu kenn du ca nekk benn waaye am yërmande dem làqu ci anonymat lay téléphoné police ñu ñëw bu dul loolu day dee ñooñu buñ nee góor ak jigéeneem buñ nee droit wu femme muy góor ak jigéeneem sañatu koo def dara loolaa tax waaye nun loolu niwul fi nun ko kon du suñu loi ndax nun dañoo gëm l'islam l'islam nag boo ko gëmee lépp loo xam ne luy xett li mbindeef yi la luy yëkkati réew la luy baaxal nit ñi la l'islam rek mooy mooy ci jiitu ñëpp te lépp lu ko xaw a niru ci beneen réew itam te appliqué wuñu ko ni ko lislaam santaane du jëm fenn day daaneel réew ma day daaneel day yàq nit ña day bonal la fa nekkoon lislaam moom mooy dindi ci nit bëgg intérêt ndax li mu yéene boppam la yéene jullit ñépp bu wéetee day ragal yàlla bu wéet li ko ragal yàlla bu dee àtte kat kenn mënu koo ger ba mu àtte lu dul dëgg bu dee jàngale kat dëgg ab jub lay def ci xol yi ñi muy jàngal bu dee xaw yi ji àtte noonu bu dee soldaar noonu bu dee limaani jàkka noonu bu dee sëriñ noonu lépp loo xam ne jógewul ci yàlla doomu aadama rek a ko xalaat te bu walaabalee day walaabal ci réew mi mu nekk ci jamono booba bu jamono ba weesoo wala nga dem ci beneen réew dootu walaabal l'islam rek moom sharia am walaabal fu nekk fépp foo xam ne dem nañ ba critiquer atte yoo xam ne l'islam a ko atte woon gis nañ yàqu-yàqu ya walakum fi qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum walakum fi qisaasi xayaatun européens yi ci ñàkk xam l'islam dañoo critiquer ba tàyyi loolu amputation maanaam dog loxob aji sàcc buñ ko fi defoon ñaari yoon kenn dootu sàcc wala kum fekk sax xayaatun nga jam ñu jam la kenn dootu mooy li ñuy wax la loi du talion que yooyu yëpp day daal di jàmm day daal di ñëw ci réew mi ñu ah européens yi xeex nañu def nañu nekk wut nañu def nañu ay congrès sàkk ay délégation préparé seen i question dem Arabie Saoudite woo borom xam-xam yëpp posé leen ko wan leen ne nii du nii waaye bañ leen tontoo dañoo daal di d'accord ca la ñu wax adduna li ko mën a jubal mën fee indi jàmm moo di jub te ak ak maandu te mënula amee lu dul ci lislaam boo demee Amérique ñi jàngale moral ñi atte police bi gendarmerie arme bi lu muy gën a bari lu mu bari bari bari boo demee tribunal dossier yi ñu war a atte gën a bari rek loo xam ne lii détective yi yëpp gën nañ ko xereñ sàcc yi ci seen bopp ñu collaboré gis ngeen mafia bi gis ngeen yooyu yëpp yooyu yëpp ñàkk diine woo lislaam moo ko waral jàmm nag du am fenn bu ñu demee kenn mënul woon a gëm ne daañu dem ba ci vingtième siècle lii xew Somalie lii xew Bosnie Herzégovine lii xew ci yeneen réew yi di am te loolu yëpp ñàkk a topp l'islam la léegi nag nit ñi lépp ci ñoom la aju yomal xiyaam ñoom la yàlla di laaj lépp tëralal ni leen yoon xam ne buñ ci jaaree seen àddina baax seen àllaaxira baax léegi nag mag ñi bu njëkk dañoo amoon ay valeurs yoo xam ne moom la ñu gënoon a fonk lépp mooy nit ki gore ngor nga xam ne nit ki kenn mënu koo ger kenn mënu koo jënd kenn mënu koo xabal kenn mënu koo jàddloo fenn ndax dee ko gënal li ko arab yi bi waxee almaniyatu wala daniya dee de mën nañ maa rey de waaye def lu suufee def lu ñaaw kenn mënu koo am ci man mais leen ngay waxee rek ne mar du ma tax a naan petit booba ngor googu bokk na ci valeurs yi fi ne woon moo téye woon société bi ba mu jekk ñaareel bi maandute ñu xamal lak ñàkk a maandu dara musula koo jaral dara musula koo jaral nit ñëw bu ko police sax gàcce la ko daan def bu bon yar bi dafa matoon xale bi day yaru ci kër gi dafay am ñu koy yar ci kër gi bu génnee ci mbedd mi am ñu koy yar bu demee ca l'école ba muy jàngee am ñu koy yar loolu na mu mën a amee kër gi hiérarchie fi am hiérarchie bu dëgër boo xam ne gannaaw góor gi nga xam ne mooy yilif ñëpp bu fi jógee maanaam xale bu góor bi mag taaw bi mooy yilif ñi fi nekk lépp kenn sañ fee def lu dul noonu wala loo xam ne tàgguwoo ko yaay ji ba ci xale yu jigéen yi kenn ku ci nekk am nga xàq yar ki la féete suuf bu ko defee famille bi jub xocc yow yaru impeccable beneen famille noonu bu ko defee quartier bi mel noonu quartier bi bu yaroo beneen quartier bi mu dendal noonu dëkk bi yëpp dal di yaru bu ko defee réew mépp yaru xaleel sax bu nekkee ci lu dul noonu booba bu séenee mag xam na mag mi wala xamu ko mbokkam la wala mbokkam bu ko séenee day nëbbu ndax li muy def ndax bu accès sañ na ko corriger loolu dañ ko mayante woon ñoom seen bopp léegi boo corriger doomu jàmbur ñëw bu la police yàqu-yàqu yi mu ne su ko wax dafa bari te man am ma jot yàlla na leen yàlla dimbali taxaw leen noo ngi dem asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barkat waaw mooy li gën darooru yu nag bu fekkee ne ñëwee ah daruraat tubi waxal mahduraat nga xam ne da ngaa amul pexe bugguloo ko jénnal boobaa nga def ko noonu waaw waaw
am na jëmm joo xam ne nee moom dafa gént itam faatu bu ñu géntee faatu dekkaat ci bàmmeel di di tudd yàlla waaw mu doon laaj ba xam léeg-léeg mu gis ay néew itam ci bàmmeel yi léeg-léeg mu wax ak ñoom mu doon laaj ba xam itam loolu waaw xol dafay am foo xam ne fa lay jublu bu fa jubloo waa ñooña lay dëkkal ñoom lay gis ñoom lay miinanteel fekkee ne nit ki dana di faral di tudd yàlla wala mu am ay xalaat ëllëg wala muy jëfandikoo loo xam ne njëf yëfi diine dëgg la bu ko duggee ñu dee ñu lay gën a faral di gis gént dee it nag wolof it nee ñu gudd fan la waaye nee ñu it dañu bàkkaar la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon ku bëgg a gis néew buy dox ci kaw suuf na xool abu bakrin abu bakrin li tax ñu tuddee ko néew moo di dafa dañ ba set ci àdduna xolam dara ci àdduna nekku ci nu ñoo adamul waquf ma al wasaait ne ñu moo doonoon xaalam ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne abu bakar gënewu leen julli gi bari wala koor gu bari wala sarax su bari waaye dafa am secret bu nekk ci xolam secret boobu mooy yëg gi mu yëg yàlla ba yëgul leneen moo tax ñu tuddee woon ko néew du gént dee dana tekki nit koo xam ne day dëddu ji àdduna ji dana mujj dëddu ji àdduna dana ko tekki wala fi nag nee ñu bu fekkente ne nit ki dafa moom si bopp moo gént dee dana gudd fan bu fekkee ne dafa gént keneen dee ñu naan dafa reer ba ba reer ba ëpp ak dafa def nii noonu waaw yooyu daañu ko di wax.
jigéen ñi jigéen ñi waaw.
dañoo laaj benn laaj waaw ñun dañuy laaj ba xam jigéenu óorul ay ni waaw kuréel la bu fa nekk hmm, wala ñoom ñi Hmm.
ñoom ñooy doonaat jigéenu óorul ay ni waaw loolu la ñuy laaj waaw waaw dégloo dégloo waaw jigéenu heure la ay ni waaw kuréel la bu fa nekk ak bu fay nekki ndax ci nit ki daañu bind ci ay jëfam ay xuurul ay ni waaye xuurul ay ni yooyu itam du ñu wàññi dara jigéen ñi ci àdduna bu ñu demee àjjana ndax foofu moom amul fiir amul xëccoo amul dara ndax nit ki ku góor ki mën na nekk ndoog juróom fukki junniy soxnaam ci benn jamono ci benn jamono ni nga xam ne mën na teewandoo ci jamono yu bari mu teewandoo benn yoon nekk Kaolack nekk Ndar nekk Louga nekk Dakar nekk Tëngéej nekk Thiès nekk Casamance nekk Mauritanie mën na koo nekkandoo ndax foofu dafa wuuteeg fii aalam la boo xam ne beneen aalam la bu bokkul ak aalam bi aalam bii ñu naan le monde des dimensions dafa am ay dimension te foofa mënee su leen koo misaal daal moom li tax yu bari neen ñi duñ ko gëm dañ koy xiyaas ci adduna bii ñuy dundee te dafa wuuteeg adduna bii ñuy dundee ba jéggi dayo ndax adduna bii ñuy dundee matériel la loo mën a làmb daj ko wala nga xool gis ko wala nga fóon ko mu xeeñ la wala nga mos ko mu saf la nga xam ne lii mu ngi fi benn aalam booba nag aalamu rawxaaniye la boo xam ne boo déggee ñu naan ki gën a tuutle ci àjjana dana ci am lu toll ne adduna nit koo xam ne sab naawaay mën nga teewandoo fu nekk nekk màkka nekk fii nekk fu nekk te la ngay yëg kenn ka fa nekk la mu fay yëg da nga ko yëg da nga ko yëg euh, ca nekk nga fa nekk da nga ko yëg fii yëg ko fu nekk yëg ko fu nekk ba nam demee loolu moo tax boobaa wana sax naa maa fi sudurhum min xillin ixwaanan suñu borom day nocci lépp loo xam ne lii jikko ju lay war a lor la ndax ku dem àjjana dootu ci lenn lu ko naqare doota mën nga ne jigéen ju ju nekkoon ci adduna jóge fi faatu dem àjjana itam du day mel ne amul wujj xam naa affaire wujj tax ñuy wax yooyu day du yëg sax ak amul wujjam day mel ne amul wujj am na nag xóoru lañ yu fa nekk ak yoo xam ñu ngi koy bind ji ci jëfi jaam ñi te bind guñ ko jaam bu nekk ci sa jëf ak soxna yi nga xam ne dañoo nekkoon fii te texee dem àjjana fekk fa seen borom kër waaw man de doon naa ci laajaat beneen laaj boo xam ci xasaay yi itam xam naa boobu rek nga doog a dem si sëñ bi nga ñaanal ma maanaam bu ma dee jàng xasaay am loo xam ne koo xam ne ñëw na dagg ma ba ma jàmmante nuyonteeg moom war a tàmbaliwaat xasaay ga maanaam diggante woon lu mel ne saddaqa loolu asim laa fa mu am ci alxuraan noonu su may tàmbale war a wax auzu billahi min shaytaani rajiim ci loolu moo doon laaj ci xasaay itam nu koy waaw jëfandikoo ci diggante tontu nga sab laaj noonu rek la
kon nag waaw kon di sëñ bi mbooloo mi ah ñi am ak waaw ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw lu bokk waaw ah sayid naa bi karam
ci woy
am na koo xam ne di sëñ bi doon la doon na laaj itam waaw kon de nañ la jéggal daf may dugalaat ci waxtaan bu gudd waaw bi.
nañ la jéggal kon beneen yoon bu wax soobee dëgg yàlla sëñ bu gàtt bi bi ndongo yi am nañ ak cant te war nañ koo am te war naa sax ci ñun itam waaw bismillah waaw ma ne sang dang sang te dang cay jàpp kon day mel ni li ñu doon leerlu ak li ñu war a laaj lépp léegi xam nañ ko ci lii mënu jox nu dégg ko nu jàpp ko ci jëfandikoo ko kon jëf ji day am solo waaye nanu gën a yaru rek comme niñ ko waxee wan te jàpp ci lii te bii ko te xam ne li indi lii mën naa indi leneen kon sëriñ bi sant nañ la gërëm nañ la ñoo ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa ak xasidaam yi sa taxawaay yàgg saw yaram wér ndax taalibe yi day yaa ngi def ci ñooñ loo ñoom loo xam ne nii yéeme na kon diir bi ci jaayir gàtt na waaye ci baatin bi gudd na bu kon sant nañ la gërëm la di ñaan liggéey bii ñu ngi fi liggéey Sëriñ Tuubaa boole ko ci liggéey yi mu gën a nangu barki Xaadim Rasuul jërëjëf